en tout cas. ci ñiy sàkk ñii la ñu teg seen bët parce que loo gis rek. Hmm. surtout bu lim bi takkoo ba takku ba takku ba takku. Hmm. il faut nga indi lu koy firnde pour mu wax ji wér. Hmm. sinon rek su ma taxawoon tey jii ne Ousmane Sonko am na 4 million de parrainage fu ma ko wekk mais defe naa ne su ma nee am na lim bu takku te xaymaaguñu ko defe naa ne am na ñu mu mën a gëm ci télévision bi loolu mooy crédibilité. loolu mooy crédit yow boo koy natt yow depuis bi mu tàmbaleeg léegi. non man parce que def na une semaine man du ma du man maa ko non bu dee ñoom. bu dee waaw bu dee voilà ça fait une semaine. gis nañ fu ne ah ñi ñu ne woon parrainage dañ leen téye mu mel ne parrainage yi <laughs> dañ leen bàyyi. ba ñu joxee topp bi ba léegi. Hmm. Euh, euh, en tout cas euh, Ousmane Sonko consigne yi mu joxee ñoom enfin ci ci kii ñoom tàmbali nañ ñun tàmbali nañ. Hmm. parce que ñun avenir Sénégal bi ñu bëgg. dañu bokk ci lo Lacoste. Lacoste leader et allié pour la candidature d'Ousmane Sonko. donc ci suñuy stratégie yi ñuy taxawal ci Lacoste. Hmm. ñun fii sans cesse nga xam ne Cheikh Tidiane Dieye. moo ci nekk comme candidat. ñun léegi. dañuy démarrer ñun tam suñu parenage bu bokkut ak bu jomaay bi. ah bu 116 day dem parce que duñu jël lépp lépp nag gannaaw dañoo bari ay noon ah, ah. dañoo bari ay noon ci dëkk bi te suñu noon yore police <laughs> yore justice yore gendarmerie euh, yore kilifa kilifa yi seen baat ah, euh, <laughs> boo fa demee Euh, tëddeewuñu ñaxana. loolu bëgg a wax Cheikh Tidiane Dièye ci plan yi la bokk. ah bien sûr mais dañ ñun ah. fii sans cesse dañuy dem dañuy dañuy wuti parrainage. ah oui ci stratégie ah, bi la xalaat naan ay Jomaay Faye ak plan bi. d'accord kon am na benn boo xam ne Cheikh Tidiane Dièye la oui il y cinq yu nekk ci leader et allié. oui dont Cheikh Tidiane Dièye. ay ñoom Dame Mbodj. Dame Mbodj. oui euh, Moustapha euh, Euh, ministre d'État Habib. Habib Sy Habib Sy. ah Jante. Jante Mamadou Lamine Jante Mamadou Jante waaw su ma juumul. Euh, voilà léegi de l'autre côté ñoom ñoo taxaw ne euh, parrainage yi. Hmm. ci Bassirou Diomaye la lañ koy lañ koy kii. mu nekk ba léegi rek ci xayma doole. man ah. noonu laa ko gisee. Ah. xayma doole. parce que peut-être que bu ñu demandoo woon ñun ñëpp ñun ñëpp taxaw. Euh, pour ñu gis addition bi mu diis mun na indi jeexi jaaxa. mais niñ ko doxalee ah euh, dina tax def tax na. Hmm. en tout cas. ñu xam ñu gis daal mu gën a leer. Hmm. lu nekk dañ koy indil ay preuve daal dafa baax ci Sénégal yi kon da nga bëgg wax ne Cheikh Tidiane bi mu wax naan je renonce à ma candidature au profit de Ousmane Sonko oui loolu da ko waxoon rek sànni non parce mais en réalité ah, kon mën nga ko wax loolu tamit ci ci Birame Souleye mën nga ko wax ci Cheikh Tidiane Dièye du ah, Birame Souleye ah si Cheikh Tidiane ah, parce que bu ñu demee di xeex euh, Ousmane Sonko ñépp ne lii du yoon dëkk bi dëkku yoon la ñu taxaw nag xeex ci ba mu mat sëkk nag hmm. ba mu mat sëkk ba mu dooree 2021 M2D ba léegi ba mu ñëwee 2017 ñëpp daw làqu ci ki nga foogoon ne moom mooy <laughs> moom mooy dem ñun ñun puusi ñu paasi ñu ñu bàyyi ñu fa boobu ba léegi ñu xam nga loolu dafa am colère indépendamment de Euh, l'action politique. Hmm. kóllëre boo xam ne lépp lu dal ci kenn ci ñun euh, ñu ciy xeex Bassirou Diomaye avant muy nekk sax candidat. Hmm. kam liñ ko teg loolu woyof na ci diir bu toll nii euh, El luñ ko toppee bracelet électronique ñu ñu ko hmm. ko. mënul dem fii mënul dem fii. ñeneen ñi kii liberté provisoire mais loolu yépp ñu ngi ko doon xeex ci biir. ba léegi yëf bi ne këtt na jonn mu des d'ici le 12. oui d'ici le 12. oui kon Cheikh Tidiane léegi ci li mu collecté léegi que ñun dañu waroon toog. Hmm. après moo ñëwaat fii ci plateau bi nga naan ma lu tax saxu leen yéen. non dañ bëgg a lay tooj wala non ci stratégie bi la bokk. ci stra moo tax avenir Sénégal bi ñu bëgg. Hmm. li muy dox mi ngi ko dox ci lakos. Dame li muy dox mi ngi ko dox ci Lagos. defe naa ne def na ay émission wax na ko ba mu leer. Euh, keneen ak keneen ci ñooñu li muy dox euh, président Habib euh, li muy wax li muy dox mi ngi dox ci Lagos est-ce que ci ni ngeen ko xalaatee noonu ak Cheikh Tidiane Dieye ci avenir Sénégal bi ñu bëgg tax ngeen conserver seen fiche 117 di wut seen parrain bokk ci 116 di wut parrain yi d'ailleurs 117 sax dina yóbbu ci waa di wut parrain yi mm-hmm. ndax mën nga ñu wax mm-hmm. au delà de information de taille bi ñu jox ni Cheikh Tidiane ak la muy wër yëpp ci stratégie la ci plan Ousmane Sonko la ndax mun nga ñu wax ni lu mu waxtaanee la li ñu waxtaanee la Cheikh Tidiane ak Ousmane Sonko ah mais bien sûr ah kañ bi mu ko seetee barki dem boo njaay ca prison euh, wala bien avant je peux pas dire waaw ah. je peux pas dire parce que la cause quand même euh, ça date de bientôt un waaye ouais. ca ba ñuy taxawal la hmm. ci la ñu taxawaloon stratégie bi te defe naa ne gis Ousmane Sonko barki démb rek la woon. oui waaw mais li wër te te te te wóor. Hmm. mooy euh, lu ñu waxtaana la ak ak ndaw usman Sonko. Ah. te am nañ yaakaar te wër na sax ne ñooñu ko ñooñu ko fa toogal. Hmm. ah euh, am nañu kàddoom la ñuy doxal oui mais mais mais kàddoom la ñuy doxal mais ndaw boobu noonu. boobu fekk na war na évoluer ndax Cheikh Tidiane Dièye daje na ak Ousmane Sonko ba génne wax ni mu ko fekkee. waaw da nga bëgg ma nettali gént jàmm non pas pas nit mais forcément comme organisation. waaw Cheikh Tidiane buy dem day demee seen tur. waaw xëy na bu ñu bisee. lim ñuy wax ñun ci public bi ñu jot ci. léegi mooy li ci ñëpp jot dina uuteeg leneen lu ñuy wax ci biir. en tout cas wéral na hmm. euh, dooleel na. Hmm. taxaw posture. Cheikh ti Dièye. ah moom Ousmane Sonko ah oui sans sans te dina feeñ sax maanaam ko confiance ànd naa ak moom ci. ah oui ci ah, hmm. lu wóor la. Hmm. lu wóor te wér la. kon mun nañoo wax sans risque de nous tromper que ni Cheikh Tidiane Dièye fait partie des candidats même bu fekkee Ousmane Sonko désigné wu ko pour la présidentielle. Oh. maanaam waxu ko publiquement comme ni ñu waxee Diomaye Faye. que ni moom it ci ci logique boobu la. waaw hmm. dans le cadre du LACOS dans le cadre de la stratégie des alliés et leaders. bokk na ci ci jeu bi fait partie du jeu. alors loolu yëpp pour dire quoi que ni dangeen na njort ni Ousmane moom du dem mën nañu tamit Jomaay Fay mi ñu tànn barki démb ñu laxas jaanit ci candidature am. dañu njort ne moo waral lii yëpp bi day wure. Ah. dañu njort ne ak lu Sénégal. Euh, jaxasoo ak jaaxle nit yi ak jaaxal ñëpp euh, lii justice gannaaw ma leen di ci <laughs> yónnee waale sama message <laughs> gannaaw ki fi des te yore seen teraanga léegi mu dem <laughs> yore ko ci nomination yore ko ci ak ay euh, voilà yóbbook indi mm. yóbbu la fu sori foo xam ne c'est bien c'est pas bien selon leurs critères parce que ñëpp ay justiciable lañ hmm. ah te nañu bàyyi di stigmatiser naan dañ ko yónnee Tamba parce que sanction la yooyu il faut arrêter ça voilà donc ñooñu yore seen teraanga ñi ngi dem kon xanaa léegi nañ jël seen indépendance nag président lay Wade waxoon na ne ah ñun de koo xam ne dañu dindi buubu jaam bi te nangoo woo dem. Hmm. kooku kenn mënu ci dara. kon buñ ko defee ci ci ci ci analogie maanaam ci ci ci niroowale euh, ñu ne leen tey jii ki yore woon seeni nomination xanaa mun ngeen muñ tuuti Sénégal euh, ngeen xaw a souffrir tuuti pendant trois mois quatre mois à ce point mais mais parce que mais parce que d'autant plus que Bachir Diomaye Faye ñi ko tànn dañ jàpp ni am na ay garantie yoo xam te ne kenn mënu koo def daal taxaw nañu fii taxaw nañu fii direction général des élections ne du appliquer décision de loi foofu wala fii lañu xew waa jaa ngi ci ci ci ci ci postam dara fekk ko fi. indee la waaw ñu ngi koy jaaree taxaw nañ fi président euh, euh, euh, bàyyi Sénat. Hmm. lu yàgg ñu naan ko war nañu changer soppi ñi nekk ci biir Sénat ñu génne leen. Hmm. mu toog dégluwul kenn mu jékki-jékki ñooñu ne direction générale des élections def leen bi acte. direction générale des élections defu ko te ba fi ñu toog ni gisuma beneen décision bu dindi boobu décision de euh, de euh, euh, Sénat jëloon. Hmm. ba léegi donc muy deuxième infraction mu teg ci ne président daal dee ñëw jël décret dindeendoo ñëpp. Hmm. maanaam ci anam boo xam ne. yoon daf ko dàq. Hmm. mais te te yoon bi ñu war a tabbee waa Sénat. dañ ko bind ba mu leer moom moo ko signé. oui mais bu ñëwee ci kaawu Jomaay Fay fan lañuy jaar pour yow. mais fi ñu jaar fi ñu jaar ba taxaw des décision de justice kookoo gën a dëgër. ah oui saba si fay jël décision de justice ne ko doxal di di benn direction ci biir dëkk maanaam président ministre direct département xaw direction. ba ci suuf. Hmm.